na lu ma leen dénkoon bés te mooy bu ngeen may laajati su laaj bi amee tur du ma sawar ci tontu bi am déet waaye su laaj bi amul tur ma man cee sawar waaye àttewuma woykat bi déedéet àttewuma woykat bi déedéet damay àtte diggante góor ak jigéen loolu laay àtte sama yoon ci woykat bi sama yoon ca ndaw sa sama yoon ca la ca xew man yooyu suma du suma problème ma wax la benn affaire ah yéen a may laaj ci de xanaa xamoo ne bëgg bàmb nii mu toogee sësoog ndaw si daganul ah bëgg bàmba loolu ma jataay bee ko laaj ngeen ne jataay bi moo ko laaj ay journaliste fii lañ mën a toog pour man laa laaj ma ne ok jeex na kon leer na ba jabar ji ngay jabar ji ngay bëgg xam nga lu ci charia wax bëgg Bàmba ñëwal kër sëñ Muntaxa xool doomam bu jigéen biñ lay bëgg a may day muuru ba mu des lii ak loxo yi tenq yi soo ñëwee ndaw si nga xool ko mu tàllal baaraamam nga xool nga xam ni amul feebaru ngaana xar kanam bi rafet na soo wóoluwul bëñ yi mu muuñ ndax mën naa xoomaak mm-hmm. ah yéen ñaari jigéen ñu xawma da ngeen waaye am na ñaar ñu xoomaak soo siiñee ñu xam ne bëñ yi weex na tàll amul sikk sikki loxo amul sikku xar kanam amul sikku bañ amul jeex na bu fa sa tànk jaarati yow bëgg bàmba tànk bëggu ñu may la say bokk na ñëw ñu may la benn yoon boobu lañ la may looluy charia lii mooy charia waaye ndoxaan Iran otom gaari toujours ñu ne oto sëriñ bi la làq leen ko ca gannaaw sëñ bi ne mbàpp ci biir luñ may làqale oto góor du jox jigéen loxo jigéen du ko jox loxo nabi nee na góor bu joxe jigéen loxo fekk mu toog wala jigéen fekk góor toog mu jox ko loxo suy dekki yow mal xiyaam du dekki waale loxo ndey joor te aljana ku manqué du fa dugg kon lëf am na kon kon foo jëm waxa rek ah déet déet déet naaru jahannama rek ah seetal loolu kuy jox jigéen loxo sa loxo ndeyjoor booy dekki doo ko gis jigéen jiy joxe loxo itam buy dekki du ko gis te aljana lu di du fa dugg lii may def xool jigéen daganut yaxudu min absaarihim yàlla nee ne boo ni tëll ndaw si ni tëll sa bët yam ci neen nii bu ko xool léegi waxuma xool mais dañuy rëbëjoo événement yi sax nga gis ko gis ponkalum góor mu uuf jigéen yow yaa saay saay yaa saay saay nga uuf ko nag nii toog yow xam nga ni seetaanoo course bi de seetaanoo làmb ji de seetaanoo football bi yaa nga ca suuf yaa xam nag commentaire. léegi sax ko déggee xool bi boo ko xoolee mën nga ci yem. non xam nga bëgg bëgg Bàmba dafa am gëm yàlla ak gëmantu yàlla dafa am gëm yàlla ak gëmantu yàlla. dama amoon benn wóllëre bu ma nekkaloon bu koy Abdou Aziz Mbaye Baye Góora Mbaye ci tib saaluma ko jur dafa moo sa wax ne ma Iran bàyyil xel ko ragal yàlla ak ko ragal gàcce mu ni ma bari na koo dénk xaalis mu denc ko delloo la ko ragalul yàlla gàcce la ragal daa xam ne bu ko lekkee nga weer ko booboo bari ragal gàcce ëpp ragal yàlla ki ragal yàlla du xalaat gàcce day xalaat ne yàlla ak ma teg bëtam su ma ko lekkee gis na su ma ko làqee gis na su ma fenee xam na moo tax accidentellement sëgal continue di mbëkk oto jàmbu teel teel teel yaa ko tey mooy li nga ma laaj waaye boo ne réll ci oto bi benn la njuumte la nga freiné mu freiné ngeen dem ci yoon wi waaye réll réll feeg yaa ngi naan réll rek baal nañ la ko aka mën a fen ki la ko wax day fen Iran ko wax moo ne waxoo dëkk góor ak jigéen bi saag di dëkk wala jigéen di fanaali ji ki nga xamante ni moo di copain am te taxu ko aw ah, loolu yëpp ñàkk kilifa la rek ñàkk xam nga nit dafa war a am kilifa gis nga man fi nga may gis nii nag am na loo xam ni su ma ko bëggee def dinaa xalaat malaaka yi ma topp bii nekk ndeyjoor moo tudd raqib mhm. moom day toppatoo yi may def ci lu baax bi féetee càmmuñ moo tudd àttiit mhm. mooy toppatoo suma ñaawtee fii alxuraan la moo koy toppatoo am na malaaka moo xam ne comme micro yi la day samay vidéo da koy enregistrer am na malaaka yoo xam ne audio lañ koy def maa yalfazu min qawlin illaa ladayhi raqibun atidun alxuraan nga yàlla ni nag kàddu bu Iran di génne micro yi li ñuy bëri bëri am na lu jàll lu leen rëcc am na wala amul am na lu leen rëcc waaye malaaka yuy dara du leen rëcc raqi ba ngi taxaw rek lu ko ci rëcc yàlla alab mu yor ay micro du geesu du wax du def dara li Iran di wax rek maa yalfasu min qawlin illaa ladayhi raqibun atidun kii ngi fuuglu rek kii ngi contrôlé rek ñoom ñaar ñëpp ba ma pare sama waxtaan ak sit internet yi ngeen leem seeni micro yéen ñi laaj bind nañ ko enregistré ko man mi wax bind nañ ko enregistré ko su yowmal xiyaame nii lañ koy tegaatee ni ngeen di génnee waxtaan bu yàgg yàgg waa archive bu ngeen bu yowmal xiyaame noonu la ñuy génnee lépp dama ne yàlla du cuuni bi ci des yàlla du tooñ day bañ tooñ la moo tax mu matal lépp mu génn soo ëllëgee doo laayi ne lii lii lii déedéet su la ko tegalee ba pare nag ne ne la waaw loo ci xam Iran ngeen ne ko xawma ci dara yaa ma waxloo te yaa ma war a yërëm yaa ma war a jéggal lépp ci sa loxo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun su boobaa mu ne kon baax na baal naa la waaye soo noon du yow nga xam ne mana soo noon du Iran danga xam ne man yàlla c'est ça moo tax gis nga kilifa baax na élage jigéen da ngay gis ko yor appartement góor a koy fay moo koy fay yamu ca de da koy daggal saleer lu tax xar kanam gi gannaaw gi jar na ko teg leen ko li may wax lu wér la lu waaw lu wér la man awma ay wiir yeeg lu ma nit jox soxluwu ma dara yàlla rek laa soxla xalifa nit ku jël jigéen wutal ko appartement te ndaw see ko koy demandé seet fu gën a jekku yóbbu ma almadi walla dëkk sàngam mu luyeel la ko ndaw si ne ko maa yor sama ndey ak sama baay mu dagg salaire jox ko féeteeg moom ci kaw ana yàlla ana malaaka yi kooku koo def su tëddee góor gi dootu xalaat yàlla góor gi bu tëddee moom du xalaat yàlla parce que yàlla nekkul fii